bur yàlla muhammadun rasulullah yaa yërmande yàlla bi jóge ca bur yàlla ca dellu ca bur yàlla muhammadun rasulullah yaa yërmande yàlla bi jóge ca bur yàlla ca dellu ca bur yàlla muhammadun rasulullah rijali jodi majal général bi jar magal muhammadu rasulullah safinatu rijal rijali jodi majal général bi magal muhammadu rasulullah

mu la a tagg bëgg moo tax ñu la jéem a tagg yónnee na na jara tagg muhammadu rasulullah safinatu ñu a julli jàkka jara ñu jullee julli jàkka jara ñu jullee xooleen rasulullah ka jalani julle falen yàlla di xoole muhammadu rasulullah safinatu sunu julli jàkka jalani julle falen yàlla di xoole muhammadu rasulullah safinatu baal ku leen coñu daldi baal safinatu moo digal muhammadu rasulullah safinatu duñu baal ku leen coñu daldi baal safinatu moo digal muhammadu rasulullah safinatu duñu baal ku leen coñu daldi baal safinatu moo digal muhammadu rasulullah safinatu duñu baal kulen ton ñu daldi baal safinatu moo di gaal muhammadu rasulullah safinatu duñ ci tuux safinatu duñ ci rax safinatu luy seen wax muhammadu rasulullah safinatu duñ ci tuux safinatu duñ ci rax safinatu luy seen wax muhammadu rasulullah safinatu duñu tuux safinatu duñ ci rax safinatu luy seen wax muhammadu rasulullah safinatu duñu tuux safinatu duñ ci rax safinatu luy seen wax muhammadu rasulullah safinatu duñu naan fu ni xoole asamaan safinatu luy seen naan muhammadu rasulullah safinatu duñu naan fu ni xoole asamaan safinatu luy seen naan muhammadu rasulullah safinatu duñu naan fu ni xoole asamaan safinatu luy seen naan muhammadu rasulullah safinatu tulu naan suñu xoole asamaan safinatu lu seen naan muhammadu rasulullah safinatu dunu naan fu ñu xoole asamaan safinatu lu seen naan muhammadu rasulullah safinatu dunu naan suñu xoole asamaan safinatu lu seen naan muhammadu rasulullah yaa di jëmmi yéen yërmande yaa nu sotti ngërmande gi ñu nandal ba ñu muhammadu rasulullah yaa di gëm ñu yërmande yaa nu sotti ngërmande gi ñu nandal ba ñu muhammadu rasulullah yow la yàlla jox dëgg moo tax yow la nu bëgg sa jëmmay toolu dëgg muhammadu rasulullah yow la yàlla jox dëgg moo tax yow la nu bëgg sa jëmmay toolu dëgg Muhammadu Rasulullah yow la yàlla jox dëgg moo tax yow la nu bëgg sa jëmmay toolu dëgg Muhammadu Rasulullah yow la yàlla jox dëgg moo tax yow la nu bëgg sa jëmmay toolu dëgg Muhammadu Rasulullah yaa yor jëmmi Adama te yaay sangu Adama te yaay baayu Adama adama muhammadun rasulullah yaa yor jëmmi adama te yaay sangu adama te yaay baayu adama muhammadun rasulullah yaa yor jëmmi adama te yaay sangu adama te yaay baayu adama muhammadun rasulullah yaa yor jëmmi adama te yaay sangu adama جيباي آدم محمد رسول الله يا يرجمي آدم يا سمو آدم يا بايو آدم محمد رسول الله sangu adama te yaay baayu adama muhammadu rasulullah yaa yor jëmmi adama te yaay sangu adama te yaay baayu adama muhammadu rasulullah yaa yor jëmmi adama te yaay sangu adama بأيو آدم محمد رسول الله يا يرجمي آدم تيا سانغو آدم تيا بأيو آدم محمد رسول الله يا يرجمي آدم تيا سانغو آدم تيا بأيو آدم محمد رسول الله sëlmal lan lay ñaan muhammadun rasulullah yàlla buur bi ñoo lay ñaan gëm gi julli lañ lay ñaan gëm gi sëlmal lañ lay ñaan muhammadu rasulullah yàlla buur bi ñoo la ñaan gëm gi julli lañ lay ñaan gëm gi sëlmal lañ lay ñaan muhammadu rasulullah yàlla bi ñoo la ndax muhammadur rasulullah yónneen yi yaa leen di jox wali yi yaa leen di sox mbindeef yi ñu leen di rax muhammadur rasulullah wali yi yaa leen di jox yónneen yi yaa leen di jox wali yi yaa leen di sox mbindeef yi ñu leen di rax muhammadur rasulullah wali yi yaa leen di jox wali yaa leen di soof mbindeef yi ki leen di rax muhammadu rasulullah yow yaay mag lii yaa ñëw di nu fàttali xeet wi ki leen xettali muhammadu rasulullah rasulullah yow yaa ndam bu du mag lii yaa ñëw di ñu fàttali xet wi ki leen xetali muhammadu rasulullah yow yaa ndam bu lu mag lii yaa ñëw di ñu fàttali xet wi ki leen xetali muhammadu rasulullah yow yaa ndam bu lu mag lii yaa ñëw di ñu fàttali xeet wi ki leen xettali muhammadu rasulullah yàlla buur bi ñoo la ñaan gën gi julli lan la ñaan gën gi sëlmal lan la ñaan muhammadu rasulullah yàlla buur bi ñoo la gën gi julli lan la gën gi sëlmal lan la ñaan muhammadu rasulullah jullil ci ay waa julli gu ànd ak ngërëm ak saxaaba muhammadu rasulullah julli ci ay waa këram julli gu ànd ak ak i mboolem saxaaba muhammadu rasulullah julli ci ay waa këram julli gu ànd ak ngërëm ak i mboolem saxaaba muhammadu rasulullah julli ci ay waa këram julli gu ànd ak ngërëm ak i mboolem saxaaba muhammadu rasulullah julli ci ay waa këram julli gu ànd ak ngërëm ak i mboolem saxaaba muhammadu rasulullah jullil ci ay waa këram julli gu am na ngërëm ak i mboolem saxaaba muhammadu rasulullah julli gën a ñuy xamal ndax yonen moo ñu teral min defi ki leen teral muhammadu rasulullah yeneen xamal ndam yonen moonu teral min defi ki leen teral muhammadu rasulullah julle gëna ni xamal ndax yonen moonu teral min defi ki leen teral muhammadu rasulullah julle gëna ni xamal ndax yonen moonu teral min defi ki leen teral muhammadu rasulullah julli gën a ni xamal ndax yonent moo ñu teral mbindeef yi ki leen teral muhammadun rasulullah na ni xamal ndax yonent moo ñu teral mbindeef yi ki leen teral muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد رسول الله رم في يعني رم فول في يوم دوم عبد الله محمد رسول الله يو يكين رم في يعني رم فول في يوم دوم عبد الله محمد رسول الله sa soxlay sunu soxla muhammadu rasulullah loolu laaj ñu ñu jox la te dootuñu am soxla sa soxlay sunu soxla muhammadu rasulullah loolu laaj ñu ñu jox la te dootuñu am soxla sa soxlay sunu soxla muhammadu rasulullah loonu laaj ñun ñu jox la te dootuñu am soxla sa soxlay suñu soxla muhammadu rasulullah ñu la bëggee dafa faar cofeel gi du la sun muhammadu rasulullah gi du masaxur fu nu tollu di la sun muhammadu rasulullah suur fu ñu toll di la suur muhammadu rasulullah ni la bëggee dafa footo fel gi du mos a fuur fu ñu toll di la suur muhammadu rasulullah

jëf ba ko ci ngi jëf muhammadun rasulullah yaa rafete rafet ku la sopp sa rafet jëmmat jikko rafet muhammadun rasulullah yaa rafet ku la rafet ku la sopp sa rasulullah yaa rafet yaa rafet ku la sopp sa rafet jëmm jikko yaa rafet muhammadu rasulullah te yarafet ku la sopp sa rafet jëmmal jikko yarafet muhammadu rasulullah yarafet te yarafet ku la sopp sa rafet jëmmal jikko yarafet muhammadu rasulullah yarafet te yarafet ku la sopp sa rafet jëmmal jikko yarafet muhammadu rasulullah yarafet te yarafet ku la sopp sa rafet jëmm ak jikko yaa rafet muhammadu rasulullah sunu xol yaa ngoog jëlal sunu ru yaa ngoog jëppal jëmm yaa ngoog fabal muhammadu rasulullah sunu xol yaa ngoog jëlal sunu ru yaa ngoog jëppal jëmm yaa ngoog fabal muhammadu rasulullah sunu xol yaa ngoog jëlal sunu ruur yaa ngoog tëbbal jëmm yaa ngoog fabal muhammadu rasulullah sunu xol yaa ngoog jëlal sunu ruur yaa ngoog tëbbal jëmm yaa ngoog fabal muhammadu rasulullah sunu xol yaa ngoog jëlal jëmm yaa ngoog tëbbal sunu xol yaa ngoog jël sunu xol yaa ngoog jëlal juru yaa ngoog tëbbal muhammadun rasulullah sunu xol yaa ngoog jëlal sunu ru yaa ngoog tëbbal jëmm yaa ngoog fabal muhammadun rasulullah diñ la bëggee dafa foor cofeel gi du ma sa xóor fu ñu talu di la sul muhammadun rasulullah diñ la bëggee dafa foor cofeel gi du ma sa xóor fu ñu tollu di la sol muhammadu rasulullah yaa leen wurus wi rafet. wurus wi gën a rafet. yaa nu andil gën gi fet Muhammadu Rasulullah. yaa di wurus wi rafet. wurus wi gën a rafet. yaa nu dem di fet Muhammadu Rasulullah jadi wurus wi rafet wurus wi gën a rafet janu andil gën di fet Muhammadu Rasulullah jadi wurus wi rafet wurus wi gën a rafet janu andil gën di fet Muhammadu Rasulullah jadi wurus wi rafet wurus wi gën a rafet jadi wurus wi rafet wurus wi gën a rafet jadi wurus wi rafet wurus wi gën a rafet yanu andil gën gi fet muhammadu rasulullah yani wurus wi rafet wurus wi gën a rafet yanu andil gën gi fet muhammadu rasulullah sa jëm may toolu dëgg muhammadu rasulullah sa jëm may toolu dëgg sa jëm nga toolu dëgg sa jëm nga toolu dëgg muhammadu rasulullah yow yaay jëm ñi dëgg màggal nga tampo dëgg sa jëm may toolu dëgg muhammadu rasulullah yow yaay jëm ñi dëgg magal na tàngu dëgg sa jëmmay toolu dëgg muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله julli gën a ñuy xamal ndax yonent moo ñu teral mindee fii ki leen teral muhammadur rasulullah julli gën a ñuy moo ñu teral julli bi ki leen teral muhammadu rasulullah julli gën a ni xamal ndax yonent moo ñu teral minde fi ki leen teral muhammadu rasulullah julli gën a ni xamal ndax yonent moo ñu teral teral Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah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 إله إلا